ñu leen di dalal ci euh, soir d'info ci ñaareelu pàcc bi tey jii dinañ ci dalal Abdoulaye Tine avocat au barreau de Paris di itam spécialiste ci wàllu relation internationale ndax xam ngeen ne ay parti politique ak ay organisation de la société civile dañu porté plainte réewu Sénégal ci wàllu parrainage bi ci euh, cour de justice de la CEDEAO di leen ci waxtaan ak yeneen ni poñ ak Abdoulaye Tine di avocat barreau de Paris ci kanam lay doon gannaaw xibaaru 20 heures yi bu ci kanamee tuuti itam sunu gan Euh, ñu war ko dalal ci pàcc bu njëkk bi di maam Adama Gueye vice président bu ONG Jamra dafa xaw a nag nekk ci embouteillage yi mi ngi egsi euh, bu su ñëwee bu incha allah dinañ waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy actualité bi xew euh, viol yi homosexualité yi yeeg yoo yëpp tey jii dinañ ko waxtaanee ak ki nga xamante ni moom mooy Mame Mactar Gueye en attendant ñu dalal ki nga xamante ni moom mooy Pape Djibril Fall maa ngi lay nuyu bu baax Pape. Binta maa ngi lay la gis <laughs> am mbégte di la dalal. waral. man gis naa la démb rek seet naa la démb. <laughs> waaw fi mu nii nag moom xam naa ne euh, moom euh, dañu war a dalal ci kanam tuuti euh, ki nga xamante ne moom mooy Mame Mactar Guèye. Mm. te ki wax Mame Mactar Guèye dañ koy dégg ci lu bare muy ñaxtu ci wàllu homosexualité. Mm. te nag l' actualité il faut ñu wax ko démb ba tey ki nga xamante ne mooy ambassadeur bu du ambassadeur le le premier ministre bu bu Canada. Mm-hmm. mi ngi fi waxtaan na ak président démb ñëpp teg ci seen nopp ci wàllu légalisation droit homosexuel yi. gis nañu aussi di ci président tontu. yow ban jàngat nga ci def. Euh, déjà xam nga luy xaar te ñëwagul Binta su ñëwee du la jaaxal. Hmm. déjà on l'attendait. on attendait la question parce que Justin Trudeau moom moo baaxee noonu. moo baaxoo noonu. c'est-à-dire que moom fu mu dem rek su eggee la question des droits humains. Hmm. entre guillemets ci ñoom seen conception bi ñu ci am. Hmm. ñoom loolu moo leen di dafa bokk ci seen agenda loo xamante ni fu ñu dem dañ koy poser sur la table waxtaane ko donc fii forcément boo gisee sax euh, par rapport ak li ñu waxante yëpp en terme de convention ak li ko yëkkati woon mooy sàkku la voix du Sénégal pour que Canada mën a accéder au Conseil de sécurité des Nations Unies boo seetloo loolu yëpp gars yi dañ ko mujj teg fële jël question centrale bi mm-hmm. daal di koy mettre au cœur parce que c'est vrai que ça fait vendre aussi ouais, parce que dafay susciter polémique mm-hmm. dafay indi public bi donc ça aussi ça intéresse mhm. mais je pense que ne aussi euh, le président li mu ko tontu effectivement il a été un avocat du du, du peuple sénégalais parce que dafa wax ne la société mhm. société bi moom mu boole ci boppam mhm. génn ci sax position personnelle am mais dana ko société bi moo parewul pour loolu effectivement il a raison je pense que ne am na benn niveau d'assumation boo xamante nii soo ko bëggee def ci société bu mel nii da ngay violent trop ak moom mhm. et je pense que ne effectivement Trudeau a trouvé plus lourd oui. et que loolu noonu loolu rek lañ doon xaar ci président de la République et que ñu continuer veiller mhm. ci loolu je pense que ne c'est important les enjeux sont ailleurs ñun tey jii ku ñuy dimbali ci droits humains mhm. dëgg dëgg dëgg pour man mooy euh, soo ñëwee Sénégal da ngay yittewoo sécurité alimentaire dëgg la soo ñëwee Sénégal da nga yittewoo ñi war a jàng te jànguñu. Mm. lan moo tax du ñu wax ci loolu ñoom. Mm. suñ ñëwee ndax du ñu inquiété wu parce que ñi war a jàng te jànguñu. Mm. du ñu inquiété wu ci ñi war a faju te fajuwuñu. du ñu inquiété wu ci ñi nga xamante ni xiif nañ mënuñu lekk di ñu inquiété wu ci jigéen ñi nga xamante ni pour ñu am doom c'est tout un problème. c'est ça aujourd'hui gis nga bés bu ñu liggéeyut ba loolu nekk une réalité accès universel boobu nekk une réalité su boobaa les droits humains. ñun nërmeelu nañu ci kanamu droits humains pour man loolu mooy droit humain mhm. en réalité mooy ces droits élémentaires mhm. léegi nag lëlee c'est d'autres agendas yoo xamante ni c'est en relation avec une certaine culture une certaine façon de voir le monde parce que àdduna aussi lépp c'est une question de vision du monde ñoom c'est leur conception c'est une question d'acception et d'approche ñoom noonu lañu ko gisee sauf que euh, mm. mm. wax sax ne président nu ko tontoo mm. c'était euh, vraiment une une réponse assez euh, mm-hmm. diplomatiquement euh, correcte mm-hmm. tey jii lan moo waral sax ñuy permettre mm-hmm. ñi nga xamante ne ñoom les occidentaux ñuy ñëw ci réewu Afrique yi di développer légalisation homosexuelle xam nga loolu Poutine daf ci mais c'est une question de rapport de force wax nga ko léegi Poutine bi muy dem France ñëpp gis nañ ni mu def Sarkozy naka wax nañ ne daf ko écraser jour boobu Xaddafi euh, bi mu tollee ci digg dooleem bi mu demee France ci Champs-Élysées yi la installé ay xaymaam. Mhm. te dara fekk ko ci. il se permet même d'arriver en retard. Mhm. donc c'est des question de rapport de force. Mhm. maintenant ce qui arrive aussi souvent mooy que wax naa ko fi ay yoon yoon euh, uude nu mu la gisee rek la lay ëwale te bu fekkee ne tamit da nga nekk ci xam nga Sénégal tey ji li ma jàpp rek mooy suñu gënoon a dëggal suñu bopp yàlla xam na ne on n'a pas besoin de courber l'échine di di sukk di toroxlu ci kanamu kii que ce soit parce que li ñëpp di wut ñun lu yàlla def nañu ko de la waaw ah, Binta loolu du lu ndaw tey jii nu sommes la septième réserve mondiale ci wàllu gaz mm-hmm. septième réserve mondiale donc euh, amul ressources yi ñuy wut yëpp fi mu ne ni gars yi ñun am nañ ko yàlla suñu borom baaxee nañu ko donc li ci des pour man c'est une question de posture c'est une question d'attitude question responsabilité aussi mm-hmm. bañ a xool lekk njëriñ li teew tey waaw mooy li may wax dem ma les urgences chassent les priorités. absolument c'est-à-dire que fi mu ne nii urgence yi ñëpp xam nañu ko. Mhm. mooy que trésorerie bi euh, doy na waar. Mhm. Euh, tension bi ñoo ngi koy wax waxuñu ko li ñu constaté réalité bi moo ëpp solo li ñuy wax. réalité bi mooy y a des entreprises qui ferment boutique réalité bi mooy ñi ñoo ngi licencié réalité bi mooy la dette intérieure gars yi ñoo ngi koy coow loolu mooy réalité bi. Mhm. maintenant face à cette réalité là est-ce qu'il faut de l'argent tout de suite. sans pour autant nga xalaat les contreparties parce que li nga wax li ci am solo mooy mallette yooyu bu duggee. d'habitude ki lay jox mallette xaarul nga delloo ko mallette. la contrepartie du don de ces mallettes là c'est ça qui doit être posé sur la table et man j'aurais bien aimé que bu fi président ñëwee aussi toutes les conventions mm-hmm. que l'on signe ñu étaler ko sur la place publique. ñu xam ne waajikat bi mu ñëwee. ne jox nañu arène nationale. ginnaaw arène nationale bi moom lan la ci bëgg. lan la ñuy fay Chine tey ci donwu arène nationale bi. lan la ñu nar a fay euh, Justin Trudeau tey jii ci li nga xamante ni jëflante na ko ak Sénégal. les questions centrales yooyu moom la Alain Duhamel tudde léegi. une transparence tyrannique. bi nga xamante ni benn société benn dirigeant mënatu ci dem mënatu ci deñ te li c'est pas le fait que ñooñu réclamer ba sonn duñu ci jot mm-hmm. mais li gën a métti te gën a soof mooy dem ba nit ñi am sentiment ne am na lu ñu leen di nëbb wala nit ñi am sentiment ne seen avenir am na lu koy compromettre te yëguñu ko wala nit ñi sax li ñu xalaat dootuñu la ko mën a wax je pense que ne loolu baaxul ci kilifa et que suñu dirigeants yi war nañ ko daw mais justement lu tax suñu dirigeants yi gëmuñu seen seen seen bopp parce que yaa ngi koy wax sànq am na ñu lu ñëpp soxla pétrole ak gaz rawatina fii ci Sénégal lu tax ñuy chercher les occidentaux toujours à diviser gis nañu politique bi su ñëwee gis nga nu muy mel on essaie de diviser l'opposition la classe politique parce que quand même pour mieux venir euh, jël suñu ay ressources on a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays ñaanaluma ko Sénégal il faut que les Africains aussi apprennent à être responsables gën a liggéey arrêter la politique de la main tendue parce que depuis après les indépendances avant et après ba léegi je pense que les politiques n'ont pas changé les politiques de développement xam nga feeñ na sax ci éco bi ñuy wax nii ndax boo xoolee yéene boobu ci 19 juin 2019 su ma juumul ci la ñu daje woon déjà CEDEAO ba waxtaan ci une banque fédérale waxtaan ci yëpp nga gis Macron ñëw court-circuité mhm. CEDEAO ñu daal di daal di leen di beddi mhm. tante wuñu fi ñun sunu tante nañu fi fédération ñu nag Gambie non mhm. tante nañu fi fédération ñu nag Mali mais ñoom ñoo koy tas en réalité au-delà de nous ñoom ñooy ñëw gëm loolu ñu ne tey jii boo fi jógee nga dem Mauritanie par exemple mais da xam ne fi nga jógee fii benn peuple bi la. mais Gambie ak Sénégal nag. Gambie ak Sénégal kazalika nga jël Mali c'est la même chose nga jël c'est-à-dire que tey jii le combat bi nga xamante ni ñoom la euh, Thomas Sankara doon ma ne muy que ñu boole ko. Mhm. balaa Thomas Sankara El Hadj Omar Foutiyou Tall boo ko gisee sa dimension panafricaniste bi nga xamante ni moom la porté woon mhm. mais loolu la tubaab yi ne du fi amee. parce que xam nañ suñu booloo. Mhm. mais kenn waxatu ko ay ñun aujourd'hui on est obligé tey ji man damay seetaan par exemple Emmanuel Macron wala soit ñoom Angela Merkel mais gis nga ñooñu da nga leen di gis seen réunion yi dañuy fanaanee réunion souvent ci seen sommet yi ngir préserver Europe yenn saa yi sax nga gis ku nara a nërmeelu ci biir Europe ñu daw yëkkatiwaat ko téye ko te ñun pourtant euh, nga gis foofu bu dara yëngoo àdduna bëgg a tukki te ñun fii dañuy toog Mali gi ñuy rey nit ñu bari mais personne ne bouge Burkina ñu rey ñu bari personne ne bouge te pourtant bu foofu bu fa kenn dee sunu gars yi fii ñu déjà sunu médias yi yëpp dañ ciy nekk sunu président yi jóg dem fa naqarlu bind ci Twitter ak yooyu yëpp daal di naqarlu alors que yow li nga am fii mënoo ko lijjanti mais justement parce que les Africains Pape Djibril je pense que dañu pouvoir trop puis le problème de leadership aussi. Mhm. kenn du nangu sa morom jiite la. Mhm. xëy na loolu moom moo mettre un frein aussi. Mhm. à l'Union africaine bi nga xam ne. oui euh, mooy souverainisme bi nga xamante ni souvent ne tient bi ñuy wax la seen caay-caay bi ñuy mmh. réunir OTAN. Mmh. bi ñuy réunir Fillon nee na boobu ñaari nit rek ñoo xam ne. Mmh. avion de bombardement yi dem nañ. te boobu ñoo ngi réuniru di wut accord OTAN te boobu avion de de guerre yi dem nañ muy François Fillon ak Sarkozy mais bi ñu waree euh, sauver Libye sauver Kadhafi mais ba Thabo Mbeki préparé wu. pour bu bu Afrique du Sud pour dem Libye mais ci la ñuy décréter no fly zone une zone d'exclusion aérienne. te kenn mënu ci wax dara africain yi kenn mënu ci wax dara mm-hmm. Abdoulaye Wade bi nga xamante ni mag la woon amoon na sagesse mm-hmm. Mm-hmm. xamoon na ne li gars yi préparé ba pare c'est irréversible mais daw joxe boppam au niveau de de de de de la Libye ci xaddafi pour ne dafay mais c'était trop tard parce que gis nga ñoo doon ci waxtaan ak colonel Abdou Aziz Ndaw euh, lundi passé gis nga ba bu assaut amee policier bi ñuy gën a rey wala bi ñuy rey wala gendarme bi ñuy faagaagal mooy ki génn def action isolée tant que ñoo ngi nekk suñu micro état yi di def ay actions isolées mm-hmm. mais les gens continueront ci maîtriser tey jii par exemple bu bu kenn di jóge Afrique mais Sénégal gii rek on a un club des investisseurs européens au Sénégal c'était un club des investisseurs français au Sénégal mm-hmm. tey jii foo mën di dem ci àdduna bi bu ñuy négocier dañuy demandoo mm-hmm. en masse mais ñun fii kenn rek jóg fii dem rencontrer Union européenne mais il te bouffe cru <laughs> il tëbb leneen li nga xamante ni mm. foofu la ñuy gën a nërmeelu Binta mm-hmm. c'est la négociation waxtaan nañ fi fii benn bés ak le professeur Alioune Diouf bi nekk à l'ENA mu ne moom il a eu à participer à des négociations mais dangay gis délégation bu jógee fii dem di rencontrer une délégation wala dans un pays africain dem di rencontrer une délégation américaine wala française mm-hmm. mais da ngay gis ci biir délégation boobu da ngay gis ñu ñëw les les américains par exemple une délégation de pas moins de trois cents personnes mm-hmm. ñii daal di ñëw ànd juróomi nit wala juróom benn nit te ci biir juróom benn nit yooyu di ñu ci fekk ñaar wala ñett yoo xamante ni kenn xamul lu ñu ciy def amuñu seen profil euh, justifié wul ñu nekk ci ci kii boobu donc je pense que aussi y a une certaine légèreté ci ci mbir yi réew du caaxaan en réalité et que ñi arrivé en un niveau stratégique nañu xam ne dañu am une grande responsabilité mm-hmm. parce que li fi Senghor defoon tey te ñuy payer les kase parce que defu ko woon ni mu ko war a defee mais tey ji ñoo ngi koy dund li Abdou Diouf fooroon a def te defu ko tey jii ñoo ngi koy dund mhm. Abdoulaye Wade li mu def lu ci lu baax ñoo ngi récolter les fruits li mu def ci safaan mais ñoo ngi récolter aussi les fruits mhm. Macky Sall aussi lépp lu mu fi def ci lu baax mhm. way wi dootul fay waaye lépp lu mu fi def safaan aussi on continuera de payer les pots mm-hmm. te loolu it ci taxawaay boobu daf ci am une ambition ni ma koy waxee matériel mm-hmm. mooy lii ñuy dox ci wàllu infrastructure ay autopont yooyu c'est très bien oui. mais y a une ambition immatérielle absolument te loolu mooy mm-hmm. l'aspect symbolique des oui. loolu mooy symbole yi loolu mooy euh, taxawaay bi nga xamante ni war nañ ko am loolu mooy li nga xamante ni moom lañ tey jii boo demee France mais Notre-Dame de Paris dafa am une signification particulière mais tey jii keroog bu mu xawee am tuuti. voilà incendie rek nga jël tey jii nga jël tey jii euh, euh, seen place yëpp. Mm-hmm. dañu am des significations. boo demee Amérique kazalika. mais tey jii Sénégal boo ñëwee quelle est la place qui symbolique yi nga xamante ni war nañ fa taxaw a partir de là-bas ñu def de grands discours pour man gore ci la bokk. pour man. Gorée président de la République daf ko waroon di saisir pour wax ak adduna bi. Mhm. parce que Gorée loolu la servir à un moment donné. pour man monument de la renaissance nga bëgg ko nga bañ ko symbolique bi ak charge bi ñu ko jox émotionnel. waroon na tax ñu taxaw foofu pour wax ak adduna bi. qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui au monde. waaw parce que Trudeau bu ñëw costume cravate lay sol ah. mm. ñëw fekk le président de la République nga sol costume cravate. mais bu dee Mohamed Sis moo lay recevoir Maroc <laughs> mais. dafay sol affaire am yooyu ñu dalal la mu war lay c'est le commandeur des religions. absolument absolument comprendre nga donc je pense que daal am na détails yoo xamante ni. package lay nekk. Mhm. quand tu offres à un état mhm. étranger surtout les puissances occidentales li nga leen di jox dafay nekk package. Mhm. mooy da nga leen di wan d' sa aada ak sa cosaan loolu mooy tax ñu fonk la. parce que ñoom loolu dañ ko fonk. te yàlla xam na ne aada ak cosaan boobu noonu ak li nga gëm boo ko jiitalee dëgg. dëggal ko bu baax am na loo xam duñ na ko ñemee laaj. dëgg la. Euh,